ni am na ñu am lu ëpp li nga xam ni moom la Bounama mi yor waaye seen xol seen xol yàlla dimbaliwu leen ba nu mën koo def fii yàlla dimbaliwu leen seen xol am na feneen fu nu jëmee seen alal lu bokk la fii kon bu ko yàlla baaxee loo xam ni wér na ma am na fay de sànq maa ngi koy bi maa ngi koy wax ni ko maanaam fay gu wér lay am ndax bu nee poña xetu àddina mi ni ciy dabu jéggale nañu ko nanu liggéey ngir ñu feret ko ci suñuy bàmmeel ngir suñu demee ñu fekk ko fa yàlla ku mu namu la fay du la liggéeyloo yàlla ku mu namu fay du la liggéeyloo kon jëf ji nga xam ne moom ngeen jëf jëfal ko lislaam bi te wax naa sànq ni néeg bi wa anna al masajida lillahi kon fala tad'u ma allahi ahada néeg bi néegu yàlla la fii mu ne ki nga xam ni moo ko financé tabax ko ku ko xamul fii mu ne xàmmewu ko ci mbooloo mi ba mu paree la jël commission bi ni leen man li ma yàlla mën loo woon def naa ko am naa ndigalu samay kilifa ñaanal nañu ma soññ nañu ma bu paree nag moomu ma ko yàllaa ko moom mi ngi noonu fii mu ne ku ko xamul du ko xàmmee ci biir mbooloo bi te mi ngi fi toog kon li muy wane mooy ki moom yëf yi te nanu jël sunu alal yi def ko fii sabilillah li mën a li mën a feeñal liggéey bi ñuy coow damay wax ni coow li ci penc mi jaru ko nañu def lu mel nii rek magu réew mi ñoo fi indi quatre-vingt-quinze pour cent musulman ñun ndaw ñi cinq pour cent lan ñu laaj mënaguñu ko indi ba pare di coow rek ñun mënuñoo indi cinq pour cent waaye ñun coow rek lañ fi nekk kon lii nga xam ni mooy liggéeyu mag ñi lii moo tabbi ci xolu njaboot jii tey ba yàlla baaxe ko tey mu liggéeyal lii lislaam lii la yàlla baaxe mu def lu mel nii kon su ko defee dañu bëgg bu ñu jullee ba pare sang bi joxe kàddu ak ñeneen imam as ci turu imam yi ñu xam ni daal tey feetu teraanga la bisu lislaam la ñu nuyu itam suñu wëllëree di alxaaji Mor Gueye soppale bi moom itam ak si na di def katu lu baax di def katu lu mel nii fu mu yëg ne mën nañu fa liggéeyal islam sopp na bi El Hadj Mor Gueye jóg na taxaw def ko fa. Ligue des imams et des oulémas imaam ngi nii siège u Ligue bi nu ko soxlaa moo nu jox siège ba tabax siège bi ngir l'islam kon kooku mën na jaxasoo Chérif Bounama mii nga xam ni tey moo jëf-jëf ju mel nii ñu mel na sopp na bi ñu mel na Chérif Bounama baxayu ko nii ñii la réew mi soxla réew mi soxlawul ñuy xas si mag soxlawul ñuy saaga mag soxlawul ñuy saaga kilifa li ñu soxla mooy ñu defar la ba ngay defare ñu defar la ba ngay defare loolu la ñu soxla ba ku la jege fexe ba mbaax dugg ci xolam ñu fexe ba suñuy kàddu ñu rafetal ko wa li linnaasi xusnan na ñuy waxante lu rafet ci kër yëpp yow mi yaakaar kër Cheikh Bou Kounta yow mi yaakaar kër Cheikh Alhaji Ahmad Bara Ndiéguène yow mi yaakaar kër Cheikh Alhaji Ahmad Ndiéguène yow mi yaakaar kër Serigne Touba yow mi yaakaar kër fan la ñu jëm fan lu jëm ñun ñëpp ci yàlla rek innama almuminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum jumaa ji du jumaay xaadir du jumaay tiijaan du jumaay laayeen jumaa yàlla la ki ko tabax loolu la wane bi mu ñëwee moo tax mu effacé wu ba kenn xamul ni kan bis bi jot man la ma gën a bégloo bi commission bi ñëwee dama ni leen bi mu ne sama kilifa Serigne Mouhamed Julli Kuntam dina ñëw man salaa leen ni man ku amul kilifa loo sumb sama yoon nekku ci ku amul kilifa loo sumb sama yoon nekku ci ndax ku amul kilifa bu la tooñee koo koy booleel waaye ku kilifa loo sumb ma ñeme ko ma santale ko yàlla waaye ma santale yàlla itam imam Moussa mii ak ñun wax ndax cër bi nu jël billaay mënoon nga ko jiite kii mën na ko jiite ñii ñëpp mën nañu ko jiite mbaay kase yéen ñëpp waaye ngeen ni nañu jël jumaa ji jox ko suñu rakk imam tafsir Abdourahmane Gaye keroog bi mu ñëwee ma ni leen ñemewu koo rejeté responsabilité yi ci kawam bëri na waaye ñemewu koo delloo ma ngaa jumaa ja taseet ma ngaa ki daara ma ngaa ki conférence fu ne ñu ko fay ci lislaam waaye ñemewul woon a lii dama ni ko boo ko gàntoo di koy demande d'explication ci kanamu yàlla ñu sant la yàlla suñu bàyyi alaaji Xalifa Gaye mi nu yar ca loolu ne ba cëru bii ñëw ñu jël ko teg ko ci loxoom yàlla na ko yàlla lafal cat mu jiite ko téeméeri at yu ànd door ren ànd ak wér ak jàmm ak sutura lépp lu nu fi jaamu ci néeg bi yàlla na ko yàlla nangu yàlla bu ci kenn ci sa bopp lépp yàlla doon yàllay képp yàlla doon yàlla yàllay kese ñu xam ni daal jumaa ji am na nu muy doxee du lu neex waay wax fi de du lu neex waay wax fi dafa am nu muy doxee ay boroomi xam-xam la ñu ko dénk commission la yor waxtaane nañu ni nuy doxale jumaa ji ba mu jeex tàkk du jumaa joo xam ne lu neex waay wax du jumaa ju nuy xas kenn du jumaa ju nuy gaaral kenn jumaa la joo xam ne yàlla ka moom yàlla la ñu fii wax mu jeex tàkk ak yonentam bi bindam boobule tërëlin yooyu la mooy programme bi nga xam ne moom lañ fi liggéey yonent bi ni nag man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw li yasmut soo demee bay wax waxal lu defar pénc soo ko mënul nga noppi jumaa jii nag ñaan nañu suñu boroom mu bokk ci liy defal jamono ci defal génération bi jumaa la joo xam ni ku fi ñëw jàng si di nga jàng masala yi daanu ko fi àtte daañu teg nit ñi ci yoon daañu leen xamal seen bopp nit so xamul boppam du xam kenn nit su gamul boppam du gëm kenn laa yuminu ahadukum xatta li axii maa yuhibbu li nafsi yu xam ne tabaarakallahu kenn mënu cee teg wala su ngeen dikkee su ngeen dikkee tey yëkkati ko jox na ko da maa bëgg a teraatal rek jox képp kon nag ñu ngi leen di sant bu baax soo yeggee te kilifa ya ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen sant bu baax dinaa léegi Idrissa wax ne bi nga xamee ne euh, wax nañu euh, euh, Serigne Tafsir Abdoul Aziz waxtaan ak moom mu mu waxtaan ak moom moom it ah jox koy conseil xam naa ne del yokk na ko yokk na ko sëñ Issa Diouf waaw waaw kon ñoom dem nañ fépp ndaxte ñëw nañ suñu kër ñëw jag dikk nañ fépp dikk na ñaari yoon ci ban waaw tafsir Abdourahmane dikk na ci man wax ma waaye su ma ko déggoon noonu rek te invité wu leen incha allahu <coughs> bi loolu moom xam na waaw waxuma la kenn ku nekk ci ñoom ñi ay mbay ñëw nañ fi wax d'accord waaw mu ne leen eh, yéen dañ leen dañoo am yaakaar ci yéen rek hmm? tànn leen ci seen comportement ak ci seen xam-xam moo tax ñu tànn Abdourahman it noonu la rek tafsir Abdourahman loolu la dañoo am yaakaar ci ne ah ci xam-xamam ah ak yooyu yëpp ñu wóolu ko fan ko jox ko kon mu ngi di ñaanal yàlla mu ngi di ñaanal yàlla bu baax a baax a baax imaam yi yëpp tabaarakallah ñu ngi dajaloo ah imaam yëpp ñaanal yàlla ndax da ngay ne dégg yokk ak ràngu imaam yeeg ulama yi waaw même suñ leen xamul woon wala ñu xam ne kon nag mu ngi leen di gàttal bu baax. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu li tax ma ubbee baytu boobu ku fi ñëw tey gis jataay bi te dara ci nuuru lislaam nekk ci yow li ma dal ba ma ubbee baytu boobu dina la dal picc bu dee naaw muy taw ci kawam ndox mu sedd naaw bi dootul mën a ni mu waree day tremble loolu ku fi ñëw tey te yàlla dénk la dara ci mbaax dina la dal ci jataay bi sa xol dina lox ndax mbégte ndeke ba mu amee ñu taxaw temm ngir kon kenn dootu julli ci àddina yit am na ñu taxaw temm di fexe nit ñi julli ba faw dañuy wax rekk ci turu sëriñ Mouhamed Jullit kàddu yu gàtt jataay bi laajul kàddu yu gudd sëriñ Mouhamed Jullit moo ñu jox kàddu ñu war ko waxal kàddoom sëriñ Mouhamed nag bokkam yëpp ñëw na ndànk jaasaat bu yet ndeer sanju bonoom ñëpp ngi fi bokki deretam ñëpp ngi fi waaye ay nawlay diineem itam ay bokki diineem ñu ngi fi ñëpp a ñëw gis nañ fi Tiwaawoon gis fi kër maam àlla ji njege gis fi cene ba ñuy wax kon ci turam ak ci turu kilifaam ndax bu ñu bëggee tudd tur yi ñi fi ñi fi dégg ñu présenté lépp bari na ci ñoo xam ne xam nañ leen bu baax waaye bu ñu bëggee tudd seen tur jataay bi du ko laaj waaye faw ñu tudd ki nga xam ne tey sëriñ bi ñu mu àndal moo ciy kilifa muy suñu waajur Cheikh Sidi Mokhtar Kunta mu sunu maam Cheikh Sidy Lamine Kunta Kunta moo demee noonu sëriñ bi ko ëppi at bu Sidi wax da ko sànq waaye nag bàyyi la te tey su desoon ak sëriñ bi ci àddina moom mooy yilif askan wi fu ko sëriñ bi ëppee at it ndax bàyyi kon sëriñ bi mu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu bu baax imaam imaam tafsir abdurahman ñu ngi lay nuyu bu baax di la sargal bu baax danañu lay dégg waaye jotaay bu mel nii tey la mos a am suñ diggante waaye alhamdulillah arab yi dañu wax ni atil qawsa bariha loolu feeñ na tey eh, sëriñ bi wax ne cheikh bu naama baxa yoxo gis nga sama xarit bi dafa wax sàng ne bu nit amee kilifa xelam day dal ci moom wax na dëgg waaye dafa am koo xam ne am na foo xam ne bu fa génnee itam ku ko gis boo amee fulla ne ko cim turu ak sant wi sëriñ am nañu amoon nañ taalibe bu nekkoon Dakar yal na yàlla dolli ko yërmande ngeen baal ma loolu du pour jotaay ñu koy wax Debbo mbay mooy waajuru Bécaye mbay mii ngeen di gis ci télé bi dafa daan wax ne ah man de samay doom ku mu neex nga doon leneen waaye yàq naa leen ndax ku dem feneen dañu xam dëkkoon ndax ay Bécaye cheikh bu Sidi Mokhtar cheikh bu naama rek laa leen tudde ku dem feneen boo présenté dañu xam ne bokkoo fi waaye cheikh bu naama baxayo ko ah ku ko wax rek ci Sénégal xel yi dina am fuñ jam waaye cheikh bu naa ma li nga def réy na lool ndam la ci lislaam sëriñ bi ne lii ndam la tabax jumaa ndam la waaye li nga ko gungee moo ëpp solo wax nañ sànq ni ab jàngoo ngi ci kaw ndax itam almadaarisu qabla almasajid boroom xam-xam yi daf ci am ñu wax ni daara moo war a jiitu jàkk ndax daara fa ngay jëlee la ngay yóbbu ca jàkka ja waaye Abdourahmane mii doon jiite tey bu jaarul woon ci daara dina doy waar loolu tey daara fa ngay jële li ngay taxawee ci mimbar bi waaye itam bu la yàlla dénkee wërsëg bul yaakaar ni tabax jàkka rek ñu koy gis sëriñ bi nee bul yaakaar ni loolu rek kay defal yàlla déedéet yaa ngi dëkk ki nit dëkk ci dëkk dëkk ci quartier dëkk ci koñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne tabax ci jàkka lu toll ni fu piccum përëntaan mën a boof ku ko def te yàlla tax yonent bi ne yàlla dina la tabaxal kër àjjana mu ni waaye reggal benn jullit bu xiif moo gën tabax junniy jàkk loolu it lu mat di bàyyi xel la ku yàlla dénk wërsëg nga xam ni yee fii yamul ci tabax jàkka rek di gestu ñu ngeen dëkkal ci quartier yi ak koñ yi baax na lool te imaam junju na ko ci xutbaam wax na ko wax am na xadis bu mu wax ittaqullaha walaw bi shiqi tamra xadis boobu dafa am lu ko sabab taqullaha walaw taqu naara astaxfirullah taqu naara walaw bi shiqi tamra fegu leen safara donte xaritu tàndarma ngeen koy fegoo dafa am lu ko sabab sayyidatuna Aïcha dafa am benn jàng benn mbindaan bu nekk ci kër gi bis jibril wàcc ni sayyiduna Muhammad gone gii di liggéeyal Aïcha day yàlla ne waa safara la safara la jëm dàq ko mu woo Aïcha wax ko ko ni ko ah, il faut nga dàq ko Aïcha woo ko yewi ko xale bi jooy ndax bëggul tàggoog waa kër gi ay Aysa jox ko benn doomu tàndarma moom rek a am ci kër gi mu ne ko ah am yóbbaale ko mu génn ngànk tàndarma bi xar ko lekk xarit wi daje gone gu yelwaan mu jox ko xarit wi ci des gone ga lekk ko Jibril dellu si ne yonent bi ah yàlla nee na kër jàng bi nga génnoon léegi àjjana la dem delloo mhm. bi mu dellu see yonent bi ni ko loo def mu def ni ko yonent bi ni ittaqullaha bi shiqqi tamra sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyu bu baax Chérif Chérif ñu ngi lay nuyu yéen ñoo ngi yéen a bokk ngi yéen a yi bokk tariqa yi bokk lépp maam Ousmane Sy sëriñ bi ne mu ngi lay nuyu di nuyu waa Tiwaawan yëpp dama dajeeg sa waajur ci benn dëkk at yële yàgg na tuuti dafa mu wax ko benn kàddu kàddu gi jataayu tey bi laaj na ko waxtu wu ne dama koy nett seen benn taalibe bu faatu woon ma dem ca tëj ba daje faat moom mu war ko taxawee mu wax ne léeg nga dem ci jàkka fekk mu fees dell te kenn newul wax ju am solo nee na léeg-léeg nga dem ci jàkk ba fees kenn nekkul parce que benn xol nekkul benn xel la ñi seen xolaka yàkkamtee selmal bu dee ba dem stade ñi yàkkamtee dem moo tax léeg nga dem ci jàkk fees dell te kenn newul kon nañu góor góorlu di feesal jàkk ji xam ni it koñ bi wala quartier bi am na beneen farata bu tegu seen kaw boo xam ni amuñ ko woon mooy dem jumaa te yonent bi nee na ñetti jumaa ku ko wuute te amoon ngànt nee yow naafeq nga maanaam mën nañ laa de ab naafeq ñetti jumaa xamit ni ñuy dugge jumaa di ko waajal di ca teel a dem waxtu wi xat na am na ci xadis yu ko du ku njëkk a ñëw mel na ni ku joxe nangam ku njëkk a ñëw mel na ni ku joxe waaye daal sàmmoonte cër yi te ñu xam ni jumaa it boo ci duggee bi imaam duggee sànq ba nekk ci mimbar bi kenn waratu la yëngu kenn waratu la wax wax nañ ne bu sa moroom dee wax sax nga di ko noppil jalgati nga hmm? faqat la a ñëw fi mu ne nii bi ñuy waaj jumaa ji ay malaaka ñëw taxaw ci bunt yore seeni registre diw ñëw na waxtu sàngam diw ñëw na waxtu sàngam diw ñëw na première heure diw ñëw na deuxième heure waaye bu imam xësee yéeg fii ku ñëwati duñu te ngant te amoo ngant duñu bind sa tur bu imam di yéeg rek ñuy lem seeni kayit dugg ci biir malaaka yaa ngi fi woon doo leen gis nag ba imam julli ba pare bu boobaa itam bu ñu duggee ci biir képp koo xam ne yaa jalgati nga maa yàq nga dara ci jumaa ji ñu wax ko képp koo xam ne yaa ngi xool imam bi xutba am loo koy wax ci sa xel parce que loolu yëpp day am kii de nangam nangam kii de nangam nangam diw képp lu ci nit di def malaaka yi nañ ko bind imaam bi xutba itam lépp lu mu wax te yàlla taxul am leneen lu mu ca jublu pour nit ñi nañ ko bind yóbbaale ko imaam kat ba mu xutba nangama taxoon nangama taxoon kon daal ci gàttal e, sëriñ bi nee na mu ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla jumaa ji Cheikh Bounama mi ko tabax di ñaan yàlla jumaa ji Cheikh Bounama mi ko tabax yal na ko yàlla guddal fanam yàlla may ko mu mën a tabax yeneen jumaa yu bari e, bokk yi fi nekkit lépp luñ fi jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu imaam imaam d'accord waaye jë waaye ngeen jëf bon ñu ngi leen nuyu di sant di leen gërëm ci teewaay bi te moom dama on chance vraiment waa Taakow si ñooy bi nga xam ne sëñ boo xam ak moo ko def fii si Taakow ñëw invité ñu loolu nag ñu ki nekk bu la invité nekk si néegu yàlla da nga siy kontaan moo la woon tànk rek di ñëw di ñaan ñi nga xam ne tamit mooy promoteur bi nga xam ne vraiment moo ko def yàlla yokk xéewalam yokk lépp ba jàkk ji tamit imaam yi fi indi tamit Abdourahmane Gaye nit ñëpp xam ko yàlla kattanal ko dooleel ko ba lépp loo xam tam yéen ko askan bi vraiment yàlla def ko si parce que ñun fii kon gox bi goxu diine la rek kon ku fi woote woote diine di woo nit di leen sañ kooku mën nañu lu gërëm ko sant ko si yàlla yokk xéwal bu baax a baax baax te defe naa ne tamit fii fi nekk loo xoolee institut ak li mu fi def lépp ñoo ko architecte ni ko présenté ku nga xam ne dëkk la boo xam ne fii day contribuer c'est vraiment la ni mu nekk dëkku diine nag ñu fi jàngalee di fi di fi di fi di fi di fi tàggat nit di fi julli di dugal suñu borom tamit ñëpp lépp ñu fexe di fàttali nit ñi li nga xam ne moom leen yàlla def ñëpp xam nañ diine moom mooy yaru mooy yarukaay mooy yarukaay diine ni mu lay yaree ak li muy dugalee sa xol ak ni mu lay formate loolu bu defee ni nga tax nga mën boo dee jiit nga mën a jub boo dee nga topp sa kii yàlla yàlla day tax nga xam tamit askan wi tam bu boobaa ni nga mën a cos ndax yàlla lépp lu muy def rek askan moom moo tax kon boog bu ñu ñëwee nit ñi si loolu di fi teg di fi teg juma di xutba nit ñi di leen jàngal di leen leeralal loolu tamit vraiment mun dul gërëm leen kon boog vraiment suñu baxee yox yokk man-manam ba li fi def yàlla yàlla def ko fi commission bi fi nekkoon aussi ñu sëñ Moussa Diop ak ñi nga xam ne ànd naa ñoom ñëpp ñu ñëw wër ñun ñëpp ñu invité ñu si bis bi ñooñu tam ñu leen di gërëm ndax ñoo xam ne l'islam lañ fi imaam ratib yëpp ñu ngi fi kon nag xam ne kon lii rek moo moo am solo kon nag na ñaan suñu borom ñu fàttaliwaat aussi nga xam ne tamit ay julit lañu ñu ñëw war a fokk këri diine yi ñu gën leen jàppale di fekk jàkka yi ba leen xam ne dañ ko tabax li bu nga tabax pour ñun dong yàlla ñu suñu borom nag lépp luñ fi jàmm yàlla ko yàlla def mu def ko si réew mi réew ñëpp ñu la ko loolu daal lañuy ñëw di ko ñaanal askan bi di ko ñaan ñu koy di gërëm aussi kilifa yi nga xam ne tamit ñoom ñëpp ñoo ñëw taxaw nañ fi maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf